ndeysaan Matar Cissé Matar Niang waaye Baye Matar Kaay nee na ndeysaan Abdou Aziz amee moom am na ndax doomam waaye ndeysaan euh, Amar Sow bàyyiwul kenn tànn lu ma bëri waaw this? Voilà. On fait une pause dugal ñaari diplôme yi ndax pare yu bëri na bëri boo xamante ne su ko fi la fi sant la bi vraiment kontaan ci bu baax a baax c' est beaucoup de moyens qui ont été vraiment pour faire plaisir à l' du Sénégal léegi nag damay euh, euh, dama bëgg dama bëgg euh, directeur de l'élevage monsieur Damso maa ko koy jox monsieur Damso maa koy jox Abdoulaye Seck Mara tey Abdoulaye Seck une chance mérite la c'est un grand monsieur Aïcha mi ngi noonu Damso jox na ko Abdoulaye Seck Mara remise de diplôme diplôme bi ñuy njëkk joxe pour mooy le président du réseau national des éleveurs du Sénégal muy monsieur le parrain Omar Sow dana koy jox diplôme bi monsieur Khalid le représentant du ministre monsieur Khalid Gueye jox diplôme leen tatoaleen s'il vous plaît ces grands messieurs ay eh oui merci voilà jërëjëf photo mi ngi noonu keneen ki ñu war a jox diplôme bi mooy la marraine la marraine madame Alfi Dieng moom la ñuy jox moom tamit diplôme am moo ko koy jox le représentant du maire de la commune de Touba moo ko koy jox ana Alfi waaw ah, waaw Alfi. ñëwal fii. koy jox. directeur Ndiaye. mu koy jox. léegi nag kan moo si topp. waaw yow Alfi bul dem yow Alfi dañu laa soxla jàkkaarloo ak Sénégal nag nii. waaw man bu Alfi Dieng nii. ah. loolu na solo. daal ba ma jël nii. alaaji Badara Dieng. Alpha Dieng taxawal nii sow. daaji kado bi daaji ko. daaji kado bi nag jox ko alaaji Badara Dieng. sow daaji ko ñu xool ko. tourné ko. la ilaha illallah. la ilaha illallah. ay le photo la photo. tàccu ko. ah ça c'est cadeau. tàccu yàlla jàppale ko may ko fa lu gudd wér gu yaram ba yàlla bàyyi ko suñu kanam mu yàgg ñoo jiite ci barke Serigne Touba Mamoun asalaamaaleykum wa rahmatulah